Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Sunu Presse a la présentation Aïcha Toupam. dal leen ak jàmm li gën a fës ci yéenekaay yi tey jilee bokk na ci génn ak àddina kii di professeur Amadou Mactar Mbow ak jano ko taskatu xibaar yi nga xamante ni gouvernement bu Sénégal war na ko amal aniki ëllëg yéenekaay le di Vox Pop di xam ne daanaka Sénégal daan nay ñàkk kenn ci ay jàmbaaram mu dellu si waa rek ci xamante ni moom moo di génn ak àddina Amadou Mactar Mbow mooy xam ne daanaka ab baobab moo daadee daanoo ki nga xamante ni yagg naa xeexal rek réewum Sénégal waaye itam li nga xamante ni moo di ak continent bu Afrique ah, yéenekaay bi di Le Soleil ah, moom itam dellu siwaat ci li ni ah, di xam ne ki nga xamante ne dafa rek yàgg xeexal ngir Afrique doon benn waaye itam ci la nga xamante ni rek moom moo di ñu xool ana naka la ñuy def rek ngir amal justice ba nga xamante ni ku nekk da ci gis boppam yéenekaay bi di Le Quotidien moom itam ñëwaat ci li ni mel di xam ne Amadou Mactar mbaw daan na wuy ji boromam yéenekaay bi di Bës Bi Le Jour moom itam dellu siwaat ci génn fàttali ne moom Amadou Mactar a daanaka a patrimoine mondial moo wuy ji boromam ak nga xamante ni rek moom moo di président Bassirou Diomaye Faye la muy ñaan moom moo taxawaayam yàgg inspiré ña nga xamante rek ñoo nekkoon na fi ministre de l'éducation nationale waaye itam directeur général bu UNESCO di Amadou Mactar Mbow muy xam ne dem na te dootul dellu siwaat loolu nag nekk la nga xamante moom moo dal ci askanu Sénégal ni ki démb muy xamle taxawaay ba nga xamante ni moom Amadou Mactar Mbow amaloon na ko ñeel wàllub indépendance bu Sénégal li jëm ci wàllub assise ya nga xamante ni waroon nañ ko am jëmale ci suñu institution muy xamle ne moom Amadou Mactar Mbow saa ne rek dafay taxaw ngir rek xeexal la nga xamante ni moom moo di réew bu Sénégal yéenekaay bi di l'Observateur a dafa dellu siwaat ci la nga xamante ni rek moom moo stratégie bu gouvernement bu Sénégal daal di taxawal ci lu ñeel wàllu développement li ko dalee atum 2025 jàpp atum 2029 la nga xamante ne rek moom moo di li ñeel wàllu projet ba ñu war a siiwal ak ñeenti axe ya nga xamante ne bi li gouvernement loolu rek la daal di tënku ngir mën a soppi lu ñeel ci wàllu économie bu Sénégal yéeni kay bi lee itam dellu si war na ci lu ñeel législative yi ñu mal muy xam ne daanaka lu toll ci 250 jàpp 300 maire yu Benno Bokk Yaakaar ñoom jamono jile ñu Walf Quotidien ah, moom ah, dafa dellu siwaat ci diggante kii di Barthélemy Diaz ak Ousmane Sonko ah, daanaka muy xamle ñaar ñooñu nag foog rek ñu sëgg daal di bëre si lu ñeel ci élection législative yi ñu dëgmal yéeni kay bile dellu siwaat na itam ca kàddu ki nga xamante ne moo fi nekkoon chef de cabinet bu président Abdoulaye Wade di Pape Samba am moom la mu xamle mu di PDS daanaka mënul gagné dara ca digganteem ak APR réew mi quotidien moom dellu siwaat la nga xamante Euh, moom moo di bilan gestion bu président Macky Sall ba nga xamante ni gouvernement bi ni ki ëllëg euh, war a janoo ko taskatu xibaar yi dellu si waat ci audit ya nga xamante ni defoon nañ ko ñeel ci yorinu réew mi nga xamante ni gouvernement gi fi nekkoon euh, noonu la yoree woon biir réew mi yéeni kay bi di les échos moom dafa dellu si waat ci plainte ba nga xamante ni Abdoulaye Sylla daan na koy def gannaaw bañ ko tuumaale génne biir réew mi lu toll ci 2700 kilogrammes ci lu ñeel wàllub or moom la muy xamle moom ak entreprise am loolee tax mu déposé ab plainte ay ñeel lu jëm ci faux ay usage de faux ay yéeni kaay bile di libération moom dellu si waat ci ab gang ba nga xamante ni amaloon na fi ab agression ci bëccëgu ndar kàmb police ba nga xamante ni jàpp na ñett si ñoom ki nga xamante ni moom moo di Mamadou Diop ñu gën ko xamee papa bu ndaw ak ki nga xamante ni moom moo di Seydina Mohamed Gueye ñu gën ko xamee Petit Mouha ak ki nga xamante ni rek moom moo di receveur boobu le mbir di Pape Gorgui Gueye daanaka jëf joojule bañ koy ko amalee foofule ca Grand Yoff ku nekk rek ci gang bi amoon na liggéey ba nga xamante ni moom nga a def ca ba ñu jeexale ku nekk rek six ba ka nga xamante ni rek moo jiite woon li ni mel mu ngi nekkoon ca biir banque bi ngir rek daal di jox signal ña nga xamante ni rek ñoo nekk ci biti bu ndaw si daal di génn yéeni kaay bi di record moom dafa dellu siwaat ci ka nga xamante ni rek moom moo di Mbaye Niang carrière ba mu am la ca baax ak la nga xamante ni moo ca bon diggante choix ya nga xamante ni eh, moom la def instabilité ya mu am ak comportement ya nga xamante ni eh, noonu la doon taxawee eh, ay bi lee dellu si waat ba tey ci la nga xamante ni moo di jongante bi war a dox diggante Sénégal ak Guinée ni ki tey mu di joru Sénégal yaamagul ñaar fukki at ci tournoi UFOA gaynde yu ndaw yooyu ne nag war a daan équipe bi di Guinée bu ñu bëggee qualifié ca final ca boobule tournoi. Le carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.